génn président Macky Sall bokk na lu gën a ci yéenekaay yi muy xalal nguur bu Sénégal nan la gëna wara taxawati ngir xex li di Covid 19. le soleil national xëy wax ci walu wi ni mel fësal bataaxal bi nga xamante mo mo tukki ci réunion hebdomadaire bu gouvernement bi di amal njiitu réew mi di président Macky Sall di xelal ay ñooyam ngir ñu fent ay mesures yu bees xex li nga xamante ne ni moom di bi di Covid 19. li ni mel la tax yéenekaay bi di critique moom xey addu ci walu wi ni mel nan président de la république Macky Sall xalaat na xalaat bu yaa ci lu ñeel mesures yi ñu war a mun a dolli ngir xeex Covid 19 moo tax yéen kaay bi naan le président de la république cogite sur des mesures extrêmes loolee nag ñu déggee ci ni président de la république fas wul taxaw benn yoon ngir bàyyi Covid 19 mu amalaat ay jéyam ci biir xew mi di Sénégal ba tax na nag moom xelal na jëwriñ yi ñu fexe fent ay pexe yi dakkal law mbas bi di Covid 19 ci transport commun yi ak ci lieu établissement public yi. L'As le quotidien moom it xëy wax ci mesures yi nga xamante ni si ni président Macky Sall bëgg na ñu daal di koy dolli ndaxte nemmeeku nañ ne fan yéen ñu génn lu ko raw démb rek juroom benn fukk ke juroom benn ka lañ nemmeeku ci biir xew mi loolee nag indi njàkkare bu rëy ci gouvernement bi ba waral rek yene kay bi naan les 66 nouveaux cas enregistrés mardi au Sénégal suite de grosses inquiétudes mo waral jittu yi mi di président Macky Sall bu partiem bi di alliance pour la république doon feti fukki at ak ñaaxam moom fekkeewu ko ndaxte defa nekkoon ci benn visioconférence ngir xol ana naka la ñuy waxtaani ngir trouver ab vaccin yéenekaay bii di l'observateur Neti ci immeuble Iliman Ndour xamle deuxième vague contamination covid 19 bi ñuy lam président de la république Macky Sall daat nay xelal di gouvernement bi ñu gën et taxawaat ci li nga ni di mesure yi sol masque Lidi di dandante Ben Maître, gel Sabu ak lepp ñu daal di koy dekkilaat ndaxte dafa mel ni askan wi ñoom ñoo bàyyi mu sedd bii di l'enquête naan dafa mel ni foo bi président Macky Sall daat na koy dakkal ndaxte yéenekaay bi di l'enquête nena le chef de l'État a décidé de siffler la fin de la récréation moy waral ni jamono ji état bu Sénégal fas yéene taxaw temb ngir rek xeex mbas bi di Covid 19 askan wi ñepp respecté li nga xamante ne ni di mesure barrière yi ba waral ci biir Vox Populi président de la République Macky Sall mo ngi ñaax jëwriñ gi ñu dénk walu wërgo yaram Abdoulaye Diouf sar mu gën proposer proposé ay mesures barrières yu am doole ngir rek ñu daal suxal li nga xamante momodi moom di bi di Covid 19 waye tam ñu artu deuxième vague bi ngir suñu structure sanitaire yi bañ a fees delle ki nit Walf Quotidien mom addu ci li nga modi projet de loi bi fasiyini amnistie ki fi ministre de la coopération internationale Karim Wade ak ancien maire ville bu Dakar Khalifa Ababakar Sall Nan président Macky Sall bëgg-bëggam bob nak bu soti moy opposition bi mom def leen di réduire manam Dal deureum dootuñu ñuko tekkeeti fi ci bi xewmi enquête xeyna wax nak ci mbirum centre de redressement yi ñuy lam laamee ni Serigne Modou Kara Mbacké laale na ci ndaxte càmbar yu yoon def yëpp ak ñeent fukk ak ñetti suspect yi ñu jàpp yëpp ñoom xamle nañ ni moom moomee di Serigne Modou Kara daat nay laale ci mbir moomee moo waral yéenekaay bi naan jamono ji mbir yi dafa mel ni day compliqué ci guide religieux bi yéenekaay yi bëri xëy nañ àdduna ci accident yi ñu ne mekku fan yi ndaxte lu ko moy rek démb Vox Populi xamle na ni lu tollook juróomi doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci biir juróom yooyee sax mu ci ñaar yoo xamante ne ay jàngalekat lañ ca boori Linguère japp Matam ginaaw bu seen auto mbeukante ak ben camion la tribune momen xey wax ci li nga xamantene mo modi del di accident yi ñu nemeku mo waral yéenekaay bi di tribune bind ci xëtam bu la reprise de la série noire jamono ji dañu nemeku ay accident yi rawati rawatina fele ci mboxo japp ci Matam libération momit xey naan un mercredi macabre ti bisu mercredi bi ñetti accident yu uti lañu gis ci bi xew mi mbokk yi fi lañu yam ak yéen lu gënoon yene yi jëf